Ama Baldé lan mooy erreur waaw Ama Baldé li erreur ci combat bi ak Modou dafa bari bari na trop ndax Ama Baldé indi woon na plan A waaye indiwul plan B ci Modou Lo mooy li indi woon mooy tey jii bu arbitre sifflé damay dox ci kaw Modou Lo mais indi woon indiwutul li nga xam ne mooy stratégie de combat bi ndax làmb boo ñëw ci biir géewu làmb nekkul dangay indi benn stratégie rek ne tey damay ñëw song la yow. Mm-hmm. Ama Baldé tey jii bu fekkee ba mu gëddee Modou Lo Modou Lo riposte Modou Lo ko ndax tey jii ñun ñi nga xam ne dañoo analyser làmb ji fi ñu ko gënoon a wéer mooy ndax Modou dina arrière Ama Baldé mhm. ndax Modou dina arrière Ama Baldé te c'est la première fois ci carrière Modou Lo Modou Lo dafa def ñaari communication ndax Modou Lo li mu ñu waxoon ci interview yi mujj yi da ko changé ci combat bi ndax man bi ñu ko mujjee jëli ji bu ñu àggee ci moom ma di ko laaj dama ko Modou gis nañ ne Balla Gaye gëdd la nga taxaw Bombardier gëdd la nga taxaw ndax Ama Baldé bu la gëddee di nga taxaw mu ne ma Fadam bu Ama Baldé defee benn pas ma def ñaari pas ci kawam léegi automatiquement bi Ama Baldé gëddee Modou Lô Modou arrière préparation Ama Baldé dafa yàqu. parce que li mu wax defu ko. waaw waaw te def na Modou Lô def na defal na Ama di loo ne nii Ama Baldé xamee ko Modou Lô. xam nga dafa sànni kurpeñ mais kurpeñ bi dafa sori. dafa sori dafa sori. dalul waaw mu dafa arrière yëngal bopp. waa xam nga tey lu war loolu li gën a rey position Ama Baldé sax du kuuba mooy arrière bi Modou Lo arrière ci Ama Baldé attaquant bi mu nekk ndax Ama Baldé dafa jàppoon ne saa yi gëddee Modou Lo dina ko fekk léegi bi mu gëddee Modou Lo Modou li nekkoon ci bopp Ama Baldé automatiquement dafa yàqu. plan ba yàqu plan ba bi yàqu na. bu fekkoon ne Ama Baldé tey jii indi woon na leneen lu bokkut ak li indi day jéem a créer leneen lu bokkut ak loolu mooy jéem a bëri Modou Lo ci combat ne nii day fexe jàpp mais dafa ñëw bërik moom ci blanchiment de bras boo xam ne nii loolu lutte pure Modou Lô du ko mën. est-ce que loolu aussi du manque d'expérience. non non du manque xam nga tey jii en général bés bu nekk Ama Baldé no mëninam boobu noonu ci la daanee ndaanam ci la déggee daal mais Modou Lô liir na Ama Baldé mais Ama Baldé liir sinon bon est-ce que nekkul euh, euh, Modou Lô na Ama Baldé Ama Baldé liiru est-ce que Ama kon dafa. il a mal préparé le combat wax ne tey jii Ama Baldé préparé na Modou mais tey jii liiru kan mooy. Ah, liiru mais bu fekkee ne. bu fekkee liiru ko kay bon. waaw non xam nga tey jii làmb na kaay lenn làmb na kaay lenn mën ngaa préparé mbër ci lu nekk. mbër indi benn stratégie boo xam ne li nga préparé woon yëpp day yàqu. Modou du mbër mu ndaw ci Sénégal te bu leen fàtte ne Modou Lo lii dal Ama Baldé da ko daloon contre Bombardier. Mhm. Modou Lo daa préparé Bombardier ci préparation bi gën a intense.

Euh, du déglu lu ñu koy wax mais day ñëw di def mbir yi boppam est-ce que du erreur bi foofu kon. waa xam nga làmb nag bokk na ci sport yi ëpp pression. Mm-hmm. ndax stade bi li muy bari bari bari bari bari bu dee football douze personnes yi dugg xaw ma. onze ñaar onze personnes. <laughs> bu dee bu dee basket. Mm-hmm. groupe ay dugg. Mm-hmm. <laughs> <laughs> bu dee mbër kenn nit ay dugg. Ah, te kenn nit kooku dugg ñëpp dañuy wër ci ginnaawam. di la xaar yow kenn loolu bokk ak ki nga xam ne ni tey jii groupe ñooy dugg. Mm-hmm. làmb dafa am pression boo xam ne ni tey jii day nekk ci biir waaw waaw waaw non nañ ko xool buñ ko boolee yeneen sport mais lan nga bëgg a wax foofu. li ma bëgg a wax foofu mooy tey jii mbër nit nit rek la mën a doon nit di nga ko préparé ci lu nekk. athlète di nga ko préparé ci lu nekk mu ñëw ci géew am lu mu perdre xam nga li muy perd mm-hmm. mooy tey jii Modou Lo moo ëpp mental Ama Modou dafa compétir yoo xam ne bés yoo xam ne Ama Baldé ak expérience aussi ah waaw soo gisee sax am na li ma la expliquer mais comprendre ko Modou dafa àgg ci niveau boo xam ne ni Ama Baldé àggu fa fii Ama Baldé ñàkkee làmbam Modou Lo dit ici bon loolu <laughs> waaw waaw mu am ah, Modou Lo dafa ñàkkee fii mhm. lii Ama Baldé ñàkk nii Modou Lo da koo ñàkkoon dans ay at ci ginnaaw mooy contre Bombardier ndax Modou Lo bi muy bëri Bombardier ñëpp dañu Modou Lo day nekk roi des arènes mu ñëw bëri offrir mhm. bëree maam man damaa ñeme mu ñëw Bombardier bëri moom ci mental léegi nag loolu mu loolu mu ñàkkoon ci Bombardier moo ko jàngal lii mu réussir ci Ama Baldé kon Ama Baldé lii da cee war a jàngal